Mhm. nit kuy def lu rafet ku mu mhm. gis rek day jàpp ni war na laa buux nga avancé macha allah muy oustaz Mamour Fall mhm. senegal ñëpp xam nañu ko borom tëngeej senegal ñëpp ràññee nañu ko dëgg bu waaye rek nga jàpp ni sunu maam alxaaji Abdoul Aziz Sy Dabakh mooy dox ci jëmmam ji mu yor làmmiñam te buñ demee ba ci kanam di nga ci xam dara macha allah alaaji asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu oustaz Mouhamad Serigne Mouhamad laa lay wax maa ngi lay nuyu la ziyaara di la ndokkeel di ndokkeel di nuyu di ziara téléspectateur u Sen TV yëpp di leen ndokkeel itam ci liggéey bu am solo bi ngeen def ci GP mhm. ñaan yàlla yàlla na sax yàlla barkeel ko amiin di ziara nag sama jigéen Fatou Abdou Ndiaye mhm. di sama jigéen bu yàgg ak ah, depuis Osan FM mhm. waaw li ma si jaaxal Fatou Abdou doogu journaliste la technicien la woon lépp la woon <laughs> waaw macha allah amoon taxawaay ñu ngi koy bu baax di ko ndokkeel ak sama beneen jigéen nag nday di met male mhm. moom itam sama jigéen di sama xarit mhm. di ko am taxawaay ci wàll wi mais ci wàll diine aussi mhm. di ziar bu baax xadi colonel moom dama gisagul garaat nag <laughs> waaw moom maa ngi koy ziar bu baax di ko ndokkeel di ziar nag eh, gentleman moom moom itam <laughs> eh, di ñaan yàlla taxawu ko liggéey bi am na solo li ngeen def itam ñëpp kontaan nañ ci Eh, di ziara mbokk yi ñu fekk yëpp. Mhm. ci plateau bi waaye nag di ziara bu baax nag eh, suma xarit suma rak eh, oustaz Mouhamad mbay Jamil di boroom xam-xam bu rafet di nit ku jàmbaar ci tariqa bi di nit ku gëm boppam nit koo xamante ni xàmmee na ràññee na. Mhm. yàlla ko yàlla lafal cat. di nuyu boroom kër gi di ñaan seen TV luñ fi def yàlla na barkeel. Mhm. barkeelante bi. macha allah ay ca xadi comme euh, oustaz sànq ba tey moom la ñu doon xaar defe naa mën nañu dugg ci waxtaan wi. macha allah bëgg naa itam sax moo ñi ci euh, Facebook bi. bu ñu mm. amee ay question yooyu yëpp tey ci guddi gi. Mm. ñu daal di profité daal di laaj oustaz a ngi fi maa ngi fi léeg-léeg mu daal di neex ñun daal nañu ko daan def nañu ko daan defee rek. Mm-hmm. Euh, bu ma sañoon nag oustaz man nag sama baat neexul mais kon ma ni daarul xabibi ay ci oustaz doxalal. Mouhamed ارحل لطيبة لا تؤم سواها ارحل لطيبة لا تؤم سواها فعساك أن تحظى برؤية طه فيها الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها طيبة طابت بطيب أصولها ومدينة رب السما سماها wa ida wasalta laha taxil min turbiha huwa itmidu laynayni wa huwa jalaha habibi xuluda tawaha daarul habibi xulubuna tawaha biha mitla taybata manzilun wa kafa biha faxran xululul mustafa bi qubaha قرت عندما نظرت لها واستبشرت فرحا بما آتاها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها من حل فيها فاز منها بالمنى من حل فيها فاز منها بالمنى ما والغيب لولانا بضواها الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها سل حنينا وسل بدرا وسل أحدا وصول حتف لهم أدعى من الوغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق واسل حنينا واسل بدرا واسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوهم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 جاءوك به إذا الكريم تحلى باسم منتخب صبرا متى تدعو الأهوال ينهادمي مولاي صل وسلم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 زكاتها قد أتت ستين مع مئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحصرا للمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه الصورا ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم رضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر أبي حفصين الفاروق صاحبي من قوله الفصل في أحكامه عمر جميلة وجد لي عثمان ذي النورين من كامولت وجد لي عثمان ذي النورين من كاملت له المحاسن في الدارين والظفران كذا علي مع ابنيه وامه ما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبا عبيدة وزبير سادة الغرار وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الخبر من زالت به الغيار والآل والصحب والأتباع خاطبة ما جن ليل الدايا أو بدا السحر مولاي صلى macha allah. Uh-huh.